asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli di ñuy seetaan wala dañuy déglu fu ñu mën di nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziar niñ ko baaxoo def weer bu jot e, ci liggéeyu Touba ca kanam nooru dara ni muy weer wu dee ñu leeral askan wi lépp loo xam ne dugg sina fi ci wàllu koppar moo xam ci biir réew mi moo xam bitim réew ak lépp loo xam ne dépensé nañ ko ci ak li nga xam ne moom moo des ci suñuy compte bancaire loolu lañ leen fas yéene faram-fàcceel ci mois de octobre 2019 euh, kon dañ koy tàmbalee euh, ci li nga xam ne mooy zone nationale bi di biir Sénégal euh, ñu njëkkee ko ci Touba Touba verse nañ ci mois d' octobre 2019 bi cinquante deux millions deux cent cinquante mille quatre cent francs su dee Dakar ci njiitul Baye Serigne Bousso euh, El Hadji Ndaw dugal na deux millions six cent soixante six mille neuf cent francs Sandaga Serigne Afe ci Ndakaaru dugal na cinq cent mille francs CFA. Euh, Orange Money bi muy jees cent quarante quatre jees six cent vingt et jees Eh, mbokk taalibe yi dugal nañ ci dix millions trois cent vingt deux mille quatre cent soixante trois Tigo di soixante seize deux cent soixante huit vingt vingt huit dugal nañ ci cent deux mille cent quarante deux francs Mbàkke ci njiitul Adja Dior dugal nañ deux cent cinquante mille francs Diourbel ci njiitul soxna Daba Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak soxna Ndey Njaay ak sëñ Fàllu Lay dugal nañ neuf cent dix mille francs ci njiitul Serigne Gora Syll dugal nañ quatre cent mille francs saint ci njiitul Serigne Ridial Seck ak Soxna Ramafal dugal nañ quatre cent dix mille francs Ross ci njiitul Serigne Aliou Ñing dugal nañ cent quarante deux mille cinq cent francs Kédougou ci njiitul Serigne Modou dugal nañ quatre cent soixante neuf mille ci njiitul Serigne Moustapha Bassirou Mboup ak sëñ mbay Diouf dugal nañ un million quarante et un mille trois cent francs euh, dëkk bu ñuy wax cey cey soxna faate Jabaay jiite ko dugal nañ cent seize mille francs daayira Baabul Ayaadi ba nekk ca añam dugal nañ soixante quinze mille francs Kafountine ci njiitu Serigne Jëmmu Cissé dugal nañ cinquante mille francs ci njiitul Serigne Mbaye Sall dugal nañ trois cent mille francs euh, am na soxna suñuy wax soxna Xadijatu li moom dafa jaayanteel boppam dugal ci compte Touba ca kanam cent mille francs euh, Fuuta sëñ Mouhamadou Fadal Dia euh, dugal na moom it cent mille francs am na versement yoo xam ne xamuñu seeni borom dañuy dem ci banque bi ci mbooleem fi nga xam ne am na fa compte ci banque yi dugal fa seen at mu jëm ci Touba ci kanam loolu buñ ko boolee mu ngi nekk un million quatre cent quatre mille cent quatre-vingt-quatorze francs euh, Daaru Salaam Jogo ci njiitul Serigne Bassirou Cissé versé na cinquante mille francs Sokone ci njiitul Serigne Modou Ablaye Diop versé na cinquante mille francs Serigne Ibra ku Koudiane cinquante neuf mille Kidira ci njiitul sëriñ Ousmane Bousso verse na quatre cent quarante cinq mille francs CFA euh, Ngunjaan ci njiitul sëriñ Modou Thiam verse na cinquante mille francs Fuuta Unaare ci njiitul sëriñ Mbacke verse na cinquante mille francs CFA Jifeer ci njiitul sëriñ Ousmane Ndiaye verse na cent mille francs CFA Joal ci njiitul sëriñ Bassirou Thiaw verse na deux cent mille francs colda ci njiitu Serigne Moussa Sène verse na. cent quatre-vingt mille francs CFA. Bokki Diawé ci njiitul Serigne Talakan verse na quatre-vingt-cinq mille francs Fouta ci njiitul maam Thierno Silla verse nañ cent quinze mille francs CFA. Diawbe ci njiitul Serigne Bara verse nañ deux cent mille francs CFA. Ngoy ci njiitul Serigne Assane Yadd verse nañ cent soixante onze mille francs CFA. Vélingara ci njiitul sëriñ Mbacke Gueye verse nañ quatre-vingt mille francs CFA Tiwaawoon verse nañ trois cent dix mille francs CFA. Euh, dëkk bu ñuy wax Daaru Bey ci njiitul sëriñ Fallou Bey verse nañ deux cent cinquante mille francs CFA loolu soo ko boolee muy zone nationale bi di biir réew mi li ñuy verse ci mois octobre deux mille dix-neuf mu ngi toll ci. 74 millions 88 mille 899 francs CFA 74 mille 74 millions 88 mille 899 francs CFA loolu mooy li nga xam ne moom la biir réew mi dajale verse ko ci compte Touba ca kanam euh, bu dee lu jëm ci wàllu euh, lampe éclairage public yi nga xam ne Touba ca kanam euh, daf ko jaayante woon jënd ko ngir fexe ba askan wi mën kee jot ci prix yu jàpp ni ñu ñu génn woon ci lu tolloog euh, vingt cinq millions jënd làmp yooyu nit ñaa ngi ñëw di si jënd si lamp bu ci nekk ñaari junni euh, ci mois d'octobre bi ñi nga xam ne wecceeku nañ ñëw nañu wecceeku si mu ngi toll ci trois millions trois cent quarante mille francs CFA mooy li nga xam ne jaay gum nañ ko ci làmp yooyu noonu euh, ñu jëm nag bitim réew ci zone Europe Europe dañ ci njëkkee itali muy coordination bi nekk foofu ñoom ñu ngi versé ci mois d' octobre 17 millions 201 mille 216 francs CFA euh, mu doon loo xam ne it lu am solo la ñu ngeen ciy jaajëfal waaye nag di jaajëfal bu baax daayira soxna jaar bi nga xam ne ñoo nekk foofu nga xam ne ci mois d' octobre bi dugal nañ ci compte Touba ci kanam lu tolloog juróom-ñetti millions ak lu teg loolu ak li nga xam ne coordination bi dajale nañ ko biñ ko boolee moo nekk 17 millions 201 mille 216 francs CFA. Espagne ci njiitul Serigne Malick Dieng verse nañ 5 millions 357 mille 482 francs CFA. France ci njiitul Serigne Mouride Ndaw verse nañ 5 millions 276 mille 970 francs euh, am na benn jaayante boo nga xam ne mu ngi jógee ci. dëkk bu ñuy wax Touba Oristano mu ngi toll ci trois cent cinquante et un mille francs CFA. Euh, ci njiitul Serigne Fallou Diop versé nañ six cent cinquante six mille francs CFA. Allemagne ci njiitul Serigne Abdou salaam fay ak waa daayira Bayern bi versé nañ quatre cent treize mille neuf cent neuf francs CFA. soo ko boolee wàllu Europe li nga xam ne versé nañ ko. ci compte Touba ci kanam ci weeru octobre mu ngi toll ci vingt neuf millions deux cent cinquante six mille cinq cent soixante dix sept francs CFA. bu ñu jógee Europe ñu jàll ci zone Asie euh, ñu njëkkee ko ci dëkk bu ñuy wax Corée du Sud ci njiitul Serigne Saliou Sock versé nañ trois cent trente sept mille francs CFA. Euh, Liban ci njiitul Pape Alioune Badara Dabo versé nañ cent cinquante mille francs CFA soo ko boolee. Euh, zone Asie muy quatre cent quatre-vingt-sept mille francs CFA. Euh, bu ñu fa jógee euh, ñu dem ci zone amerique zone Amérique dañ ci njëkkee dëkk bu ñuy wax Argentine ci njiitu Serigne Pape Soda Sey verse na sept cent cinquante-quatre mille cinq cent francs CFA. Chili ci njiitul Serigne Khadim mbay verse nañ cent treize mille francs CFA. Canada ci njiitul Serigne Pape Amar. versé nañ un million cent quatre-vingt-six mille francs CFA euh, États-Unis ci njiitul Serigne Souhaïbou Seck versé nañ trois millions deux cent quatre-vingt-un mille francs CFA soo ko boolee ci zone Amérique li nga xam ne versé nañ ko ci compte Touba kanam mu ngi toll ci cinq millions trois cent trente-quatre mille cinq cents francs CFA suñ jógee Amérique ñi ñëw ci zone Afrique Afrique dañ ciy jiital Gambie ci njiitul Serigne Khadim Thiam versé nañ million soixante six mille cinq cent francs CFA. Euh, Guinée Bissau ci njiitul euh, sëñ Modou Atta Seck euh, versé na sept cent trente cinq mille francs CFA. Guinée Conakry ci njiitul Serigne Modou Thiam versé na cinq cent mille francs CFA. Afrique du Sud ci njiitul Serigne Mor Dieng versé nañ million. Côte d'Ivoire ci njiitul Serigne Mor verse nañ 1 million 250 mille francs CFA Cameroun ci njiitul Serigne Cheikh ñaasa Gueye verse na 2 millions 147 mille francs CFA 2 millions 147 mille francs CFA. Euh, Mali ci njiitul Serigne Aliou Waaj verse nañ 310 mille 500 francs CFA Gabon ci njiitul Serigne Pape Ciss nañ 1 million. Mauritanie ci njiitul Serigne Ibrahima Sarr verse nañ 1 million 30 mille francs CFA soo ko boolee ci diwaanu Afrique li ñuy dugal lépp ci compte Touba ci kanam mu ngi toll ci million millions 39 mille francs CFA euh, soo boolee nag zone nationale bi muy biir réew mi di Sénégal euh, nga génn bitim réew dem Afrique dem Europe dem asi soo boole loolu lépp li nga xam ne murid yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew dajale nañ ko def ko addi Serigne Touba dugal ko ci compte Touba ci kanam ci mois d'octobre 2019 mu ngi toll ci million 121 millions 545 mille 976 francs mooy li nga xam ne moom la Touba ca kanam collecté ci mbooleem gox goxaan yi nekk ci biir àdduna bi mu ñëw ci compte yi Touba ca kanam loolu nag doon lim boo xam ne ku ko dégg di nga xam ne mbir mi mi ngi am ak yokkute ndax diiru Touba ca kanam bi ñu tàmbalee ba léegi weer wu ci nekk gis nañ ne day gàccaal moromu weer wi nga xam ne jàlloon na ndax weer yi ca ginnaaw Touba ca kanam mu ngi doon am ay 60 millions ay 70 million ay 80 millions waaye weer octobre wi nga xam ne dafa tombé woon ak màggal Touba nekk ci biir Touba ca kanam liggéey ci liggéey bu am solo ñu ciy sant mboolem membre Touba ca kanam yëpp gis nañ ne jur na résultat bu am solo muy 121 millions 545 mille. neuf cent soixante-seize francs mooy li nga xam ne moom la Touba ca kanam collecté ci mbooleem gox goxaan yi nekk ci biir àdduna bi mu ñëw ci konti Touba ca kanam euh, euh, ginnaaw bi leen leeralee li nga xam ne mbokk taalibe yi euh, joxe nañ ko seen addiye ci Touba ca kanam dañoo fas yéene la leeral li nga xam ne Touba ca kanam génn na ko comme frais ci mois d'octobre jëmale ko ci mbooleem liggéey boo xam ne engagé na ko mu jëm ci Touba Euh, liñ ci njëkk mooy euh, poste de santé bi nga xam ne moo nekk Boberel euh, ci mois d'octobre Touba Ca Kanam dépensé na ci cinq millions deux cent dix-huit mille deux cent cinquante francs CFA. bu dee poste de santé bi nga xam ne moo nekk Kër Gol te Touba Kanam tàmbali ko weer octobre bi Touba Kanam def na ci neuf millions neuf cent quatre vingt mille 700 francs CFA euh, Daaru Xaddim bokk ci poste de santé yi nga xam ne it Touba ci kanam naal na ko euh, def nañ ci ci mois d'octobre 4 millions 681 mille 150 francs CFA. bu dee lu jëm ci wàllu euh, bâtiment R plus 3 bi nga xam ne Touba ca kanam jaayante na ko ci biir université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko santaane. Euh, Touba Ca Kanam ci chantier boobu def na ci ci weeru mois d' octobre un million cent vingt deux mille cinq cent francs CFA euh, ci màggalu Touba gi ñu génn euh, li nga xam ne Touba Ca Kanam xayma woon na ko ci ci lu jëm ci wàllu dépense moo xam ci wàllu communication la moo xam ci wàllu massification la moo xam ci wàllu stand yi nga xam ne defoon nañ ko ci mboole biir dëkk bi personnel yi nga xam ne Touba kanam jëloon leen te war leen a fay euh, exposition bi nga xam ne Touba ca kanam defoon na ko euh, ci jumaa ja ñu luy woon ci ay bâche xel comme bâche ngir mbokk taalibe ñëw fa képp ku bëgg xam dara Touba ca kanam ñëw fa ak mbooleem frais yoo xam ne Touba ca kanam def na ko ci màggalu Touba gi ñu ngi mu ngi toll ci million 19 millions 648 mille francs CFA euh, bu dee lu jëm ci wàllu reboisement bi muy garab yi nga xam ne Touba ca kanam jëmbat na ko ci dëkk bi rawatina euh, koko yi nga xam ne moo nekk ci deux voies yi ci distance bu tolloog 3 kilomètres euh, def nañ ci 1 euh, million 68 mille cent francs loo xam ne mu ngi jëm ci wàllu personnel yi nga xam ne dañ fay liggéey ak wàllu matériel yoo xam ne jënd nañ ko def ko fa ngir gën a jàppandal liggéey liggéey boobu noonu. ba tey ci wàllu frais yi xam ngeen ne biñ jubee màggal gi Touba ca kanam dem na ci gox yu bari doon fa jëlee ndox mi. Euh, di ko sëkk ngir fexe ba jàppandal dem bi ak dikk bi ci biiru màggal gi loolu Touba ca kanam def na ci lu tollook ñaar fukki million euh, bu dee lu jëm ci wàllu euh, citerne yoo xam ne Touba ca kanam jëndoon na ko muy citerne yoo xam ne benn bu ci nekk capacité mat na 5000 litres Touba ca kanam fàgg woon ci 20 citerne mu ngi tolloon ci 12 millions de francs CFA loolu nag suñu ko boolee muy li nga xam ne commission réalisation ñi nga xam ne mooy wàll li ñuy tabaxak yooyu noonu yëpp ñu lim soo ko boolee mu ngi toll ci 33 millions 776 mille 750 francs CFA. bu dee lu jëm ci wàllu charge fixe yi euh, moo xam location yi la euh, moo xam euh, motivation yi la loolu lépp soo ko boolee mu ngi toll ci 2 millions. six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent francs euh, CFA. Euh, ba tey ci wàllu fare yooyu euh, bi ñuy waajal mbalem màggal Tuuba gi ci lu jëm ci wàllu nag ak ceeb ak matériel Tuuba ca kanam fare woon na ci trois millions cinq cent quarante cinq mille francs CFA. li nga xam ne mooy fare yi nga xam ne Tuuba ca kanam def na ko. Euh, ci weer octobre mu ngi toll ci quatre million trois millions deux mille deux cent quatre vingt treize francs CFA quatre vingt trois millions mille deux cent quatre vingt treize francs CFA. Touba kanam weer octobre dajale na ci mboolem àdduna bi cent vingt million un millions cinq cent mille neuf cent soixante seize francs li nga xam ne fare na ko ci. mu ngi toll ci 83 millions 297 mille 293 francs CFA mu des ci weer woowu kon 38 millions 248 mille 683 soo ko booleeg li nga xam ne Touba Ca Kanam dese woon na ko ci banque yi ci mois de septembre di million millions 880 mille 463 kon ci weeru octobre Touba Ca Kanam am na ci mbooleem compte bancaire am yépp cinq cent seize millions cent vingt neuf mille cent quarante six francs CFA ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xam ne tàbbal nga ci sa ñaq yàlla na ko sëriñ Tuubaa nangul te làqal la ko fu yàq àggul di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides suñu borom may ko fan wu gudd ak wér ci barke borom tubaa di sant mbokku jullit yi rawatina mbokku taalib bi yëpp moo xam fu ñu mën di nekk moo xam ci biir réew bi moo xam ci bitim réew mi ak ñi nga xam ne ñoo jiite collecteurs yi ñu ngi sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu